Senclic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ak cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf. ay yonent ne booba fekk na xale yi fu ñuy jóge rek dañuy daw dañuy daw ñëw ci moom dañuy daw ñëw ci moom mooy seen maam mooy seen xarit bu ñu ko fekkee muy julli sañu war ko seetal loolu.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 yonent bi ni ko fa teg tegg ànd ak Sidna Aïcha teg dem yoon seetal loolu xam nga bu doon doomu senegaal daf koy dab ak yéen maa la ko wax xaañ ko daf koy xaañ moom defu ko mukk dafa dem rek tëju ci néegam di xalaat di xalaat ba gis ni ndeke polygamie aada la aada jur la waaye aada du xaqiiqa mukk couple rekk mooy xaqiiqa mu jàpp loolu waxitam ni Sayyidatuna Aïcha cofeel gi ko yonent bi sopp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 ndax lii yonent bi def léegi bu ko keneen defoon dinañu ko jam mu nekk di ko liggéey nag di jege si naaysa xam ni amul xarit bu jigéen te jigéen bu ne soxla nga xarit bu jigéen surtout boo dee sëy bu la dul yàqal bu la dul yàqal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 góor ak jigéen ànd ñaari at kenn ku ne yëg ci boppam nit jikkoom defaru na waaw mm-hmm. kooku mooy njëkk mm-hmm. hmm? kooku mooy njëkk waaye li ci des am ca doom tëdd ak moom tëraay yu bànneex yépp wes ci wes ci de moom doo ko wax xam nga moom il est comme ça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 jógal dem kët parce que ñëpp dem nañ waaye mu dem ñetteel après mu ñëw ni ma waaye man su ma demal woon àdduna tukki ah te loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg mais bi tegu ci tasal surit baaxul te colonisateur bee koy def moom bu coloniser réew dafa naan yàlla nekku fi man maa fi nekk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 ndax rek ni ni ñu bañ injustice man la ko wax man la ko wax. Senclic yéen ñi abonné gul gaaw leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.